jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu euh, mbokk yi ñu dellu am mbégte dellu si waat euh, ci seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck tey ñu invité. dellu am may invité Maymouna Bousso mi nga xamante ni moom moo jiite force citoyenne mu nekk ab. kuréel boo xam ne dafa yëngatu ci lu jëm ci wàllum politique euh, dinañu waxtaanee lu jëm ci wàllum force citoyenne waaye lépp lu jëm ci wàllum actualité tamit danañu ko daal waxtaanee ak taxawaayu euh, jigéen ñi ci wàllum politique bi rawatina wàllum parrainage bi ak élection locale yi nga xam ne moom la ñu génn ndax gis nañ euh, quelque communes yoo xam ne jigéen ñi ñoo fa nekk maire ñenn ñi jàpp ne ba léegi dafa daal di tuuti soxna Maymuna Bousso maa ngi lay nuyu. naa ngi lay fay bu baax euh, sëñ Abdou Khadre di nuyu say auditrices ak say auditeurs. di nuyu askanu Sénégal yëpp à travers euh, sa onde yi. Euh, Maimouna Bousso ñu ñëw ci force citoyenne mu nekk kuréel boo xamante ni yow yaa ko jiite force citoyenne tey ban taxawaay la am ci politique gu réew mi. waaw sëñ Abdou force citoyenne nag mouvement la boo xamante ne. li ko taxoon juddu mooy déjà juste xeex injustice ak itam jàpp ni injustice li koy indi mooy lu gën a bari nit ñi ñàkk xam seen droit ak ñàkk jël conscience de seen responsabilité ci euh, réew mi donc ñun suñu axe bu ñu njukkoon teg mooy déjà conscientiser jeunes yi sensibiliser leen jox leen courage euh, partage d'information euh, waaye jamono yi ñuy wax nag suñu taxawaay mën naa jàpp ni léegi lañ ko bëgg a ñooñal dëgg-dëgg parce que ñu ngi euh, jëm ci lu ñuy wax élection législative euh, mouvement bi mu ngi ubbeeku bëgg def coalition bu yaatu avec des forces citoyennes et politiques ah comme ça ñu mën a vraiment am ay représentants du peuple parce que nag boo nee euh, da nga bëgg représenter sa sa askan il faut déjà nga wax leen nga won leen foog naa jom won leen fulla won leen taxawaay bu doy war a mën a tax nga sañ laaj seen baat waaw mais Maimouna euh, force citoyenne euh, gisoon nañ fi élection présidentielle euh, lan moo tax demu leen ci woon gis nañ fi élection locale ban taxawaay ngeen ci amoon. waaw élection présidentielle fekk na foog naa force citoyenne judduwul woon parce que 2019 ñu ngi nekkoon ci mouvement bu ñu doon wax mouvement ci la ñu demoon nañu nag jàppale woon candidat mais ñun nekk ñu woon candidat bi ñu jógee ci 2019 ci la ñu taxawal force citoyenne ñu élection locale yi ñu weesu bu ma bëggee ne li tax bokkuñu ci question de principe la woon parce que ñun dañoo gëm ne dafa am ay principe yu bëre yoo xam dañ ko tegoon pour ne critères yi moo tax nit war a mën a nekk maire parce que ñun jàppoon nañu ni boo bëggee nekk maire il faut nga dëkk ci commune bi nga bi nga bi nga bi nga bëgg a mu bëggee nekk maire il faut lii il faut lii il faut lii critères yooyu yëpp ñu dajaloon wax dëgg yàlla sunu ay candidats parewuñu woon man mii en personne euh, et tamit euh, jàppuñu ni pour am dombal tànk rek il faut ñu dem ak tout sort d' alliance yi taxawoon euh, de telle sorte que ni ñu ko ni ñu ko ràbbee teelu teelutoon ñu dem ba dernier moment euh, petit xoo bi bare euh, tamit plongé rek pour nekk candidat ñenn da leen a doyut benn alliance doyu leen woon non du càggin loolu am na alliance yoo xam ne xëy na doyoon nañ ñu mais ni ñu ko tëggee ca njëlbeen ga euh, principe yooyu moom la ñu d'accord woon d'accordul woon xam nga ñu nag mënuñu bëgg une chose et son contraire mënuñu wax principe wax euh, euh, condition ba pare ñuy dem ba ci biir di xool suñu intérêt bopp ci opposition bi la ñu bokkoon ne woon ci FRN opposition bi waxoon ne day àndandoo def benn def benn bloc nit ñi doon xaar ci liggéey boobu kon bi ñu demee ba opposition bi féewaloo ñu am ñaar ba ñetti bloc ñu war a tànn ci ñaar ñetti bloc yooyu te jamono jooju ñu too ñu taxawoon diggante bi gàttoon na lool te ñun on était pas suñu ay principe du woon loolu suñu ay principe moo nekkoon bu ñu naroon dem ba wut euh, euh, ay mbiru euh, gox-goxaan nit ñi dañu war a ànd te loolu nag tey résultat yi jox nañu dëgg parce que gis ngeen coalition yu nga xam ne ànduñu woon sax ba ñu tëgg seeni i coalition bu ñu wëlbati ko ci conseil municipal dañoo mujjee ànd pour mën a taxawal conseil municipal xam nga loolu tamit bokk na ci lu ñuy ŋàññee suñu mbokku politique voilà loolu loolu bokk na dafa yombul aussi waaw mais xam nga d'accord mais ay nit bu fekkente ne ñoo bokk bëgg-bëgg intérêt réew mi laal ko euh, war nañu mën a fàtte seen ay ego personnel parce que tey gis nga am na commune yoo xam ni euh, Yewwi dafa demal boppam Wallu demal boppam Gëm Sa Bopp demal boppam mais bañ taxawee ca cëppaandaw ga war a defal conseil municipal danoo mujjee wëlbatiku joxante loxo voilà loolu nag mooy li tax ñun demuñu woon ci local yi te loolu moo tax itam tey ñu jël suñu responsabilité bañ lu mel noonu dal ñu ñu jël suñu responsabilité en tant que mouvement wuti ay mouvement ni ñun daal di wuti euh, élection législative parce que bëggatuñu daal loo xam ni dafay nduroo ak ay combine yoo xamante ne boo demee ba ci biir doo xam lan mooy intere général mais ay intérêt personnel moom ngay gis. d'accord léegi euh, force citoyenne. ay jigéen kese la wala am na ay góor. déedéet ay jigéen kese waaye nag dañuy nangu te dañuy namm ne itam dafa jot tamit jigéen ñi jiitu góor ñu topp seen ginnaaw parce que tamit politique bi dañuy tàmm di gis mooy. waaw fu ñu ko teg rek mooy fi jam li jamono laaj. Ah, fi ñu ko teg xam nga xam nga fu ñu ko teg mooy waaye jigéen ci Sénégal. ak ci àdduna bi parce que ñëpp gis nañ ni jigéen yaay la. jigéen euh, stratégiquement bu ñuy wut jàmm ah moom bokk na ci ñu koy ñu koy gën a ñu koy gën a jëm wut. bokk na ci ñi gën a dal bokk na ci ñi nga xamante ne wax dëgg yàlla mën nañoo uuf ñëpp. donc itam ñun dañu bëgg vraiment. ci promotion da ngaa wax ne yéen a dàq gérer ko góor loolu moom prouvé nañ ko parce que gis nga commune yi nga xamante ne yëpp ay jigéen ñoo ko jiite mais ñu ñun ñi ñàkk ñu wóolu du càgginu suñu ñàkk preuve parce que tey jigéen ñi jiite ay kuréel yëpp. Mm. ba ci ay ministère rek leneen mosoo dégg fu ñu leen taqalee ci ay duubal. wala boog néew na lool. donc vraiment côté boobu moom jigéen ñi amul nuñ ci te nag jigéen ñi ci biir kër yi euh, sëñ Abdou Khare ci lañ njëkk a seen taxawaay bu mat sëkk parce que foog naa ni kër goo dugg jigéen ba matul kër ga du taxaw lu dëgg ah, yow mi sa dépense da nga koy joxe ca kër ga <laughs> ñu téyel la ko téye bu baax lépp mën a dox kon nag dafa laaj dafa dafa jot itam jigéen ñi jiitu góor ñi itam bañ am benn xeetu euh, majocisme bu ñuy am mais topp ci ginnaaw jigéen ñi ñun jigéen ñi toppee woon seen ginnaaw puus leen jiital leen. waaw mais lii tamit euh, mbirum discrimination discrimination li nga wax ni. mooy li ñenn ñuy doxee rek yéen li ngeen war a def kay mooy xanaa force bu ngeen déggee seen force citoyenne. yéen jigéen ñi ngeen dem ngeen yéen a góor ñi ngeen boo xamante ku mën a ji ku war a jiitu jiitu mais bu ngeen ne jigéen ñi rek ñooy jiitu loolu tamit euh, y'a problème. waa déedéet waxuñu la waxuma la jigéen ñi ñooy jiitu dama la bëgg wax ni la man mii maay tête de liste force citoyenne. li ma la bëgg xamal mooy ne euh, góor ñi ñuy àndal du càgginu dañoo néew doole wala dañoo dañoo nekkul dañoo matul lu ñu doon mais dama ni la dafa jot. yaa ngi dégg. gu mm-hmm. jigéen ñi jiitu itam ci yenn kuréel yi parce que tey loo mën a wax mën a wax sur le plan politique jigéen ñi dafa néew seen représentabilité dafa tuuti. kon nag bu ñu bëggee loolu yokk il faut jigéen ñi itam di ñeme ni ca kanam di mën a laaj seen tamit tamit ay baat parce que bu dul loolu bu ñu xaaree rek góor ñi di leen cëral du mujj du du sotti. d'accord mais yenn seen coalition bi ngeen bëgg a teg ci euh, élection législative yi est-ce que est-ce que xatu diggante bi est-ce am ngeen fi temps. waaw ah, déet jàpp ñu ni xat na moo tax ñu tàmbali ko léegi parce que nag boo xoolee diggante élection locale ak élection législative juróom benn weer kese la commencé nañ ko nag ba ca élection locale yi ñu ngi doon waxtaan ñi nga xamante ne ñii dem nañu ndax amoon nañu itam ay kuréel yoo xam ñu bokk ci ñun demoon nañu ci ci ci élection yi xëy na nekkuñu woon ay tête de liste ñu ngi ci woon ci liste proportionnelle yi bari nañ ci ay ay conseillers donc yàgg nañu waxtaan donc nekku ne tey lañ xëy rek commencé politique bi mais daal liñ la mën a xamal mooy ñun suñu bëgg-bëgg dem assemblée nationale du rek pour euh, euh, ñëw nekk ay député déedéet dañoo am ay ay ay ay ay bëbët am ay projet de loi yoo xamante dañ ko bëgg a voté mu dellu ci askan wi moo xam ci tout tànk yi moo xam ci jigéen ñi la moo xam ci askan wi en globalité te loolu nag pour ñu bëgg ko taxawal ñoñal ko il faut ñu mën a am kàddu askan wi te dama la wax léegi ne la askan wi pour nga am pour nga am sañ-sañu laaj kàddoom dangaa war a déjà yow bëgg askan wi dangaa war a déjà yow Euh, euh, nekk koo xamante ne yow jàpp nga ni askan wi war nga cee mën a yokk sa sa sa sa kàddu yokk ci sa xarañte sa sa élément technique ba mën a taxawal ko xeexal ko saytul ko te gëm naa ni lii yëpp ma la wax nii askan wi gis nañ ci as tuut ci ñun ndaxte boobu ba léegi ñu ngi koy prouver léegi nag li ci li ci des mooy dem fa ñuy euh, dogalee loi yi pour mën a itam apporter quelque chose à la population mais pas juste di ñaxtu wala di xeex wala di wala di bind. waaw euh, Maimouna Bousso bala ngeen dem assemblée national tamit dafa am benn liggéey boo xam ne euh, est-ce que liggéey boobu euh, def ngeen ko ba pare wala yéen a ngi ci yoon wala yéen a koy mébét ndax xam nga tey boo ne force citoyenne. nga bëgg koo amal ci biir réew mi biir réew mi yépp amaana bitim réew laaj na. communication bu yaatoo yaatu laaj na ay tournée yoo xamante ni da koy da ngeen ko war a amal laaj na tamit ngeen samp ay bànqaas euh, ci yenn département yi yenn région yeeg yooyu liggéey boobu fan ngeen ci toll. waa liggéey boobu ñoo ngi ci moo tax ma ne la léegi-léegi coalition lay doon ndaxte du liggéey boo xamante ne même na su kese moo koy def loolu il faut mu leer am na ay yeneen mouvement yoo xamante ne ñi ñu ngi Saalum ñi ñu ngi Ndar nii ñu ngi tuubaa ñu ngi ci dëkk bi ñooñu lañuy ñuy joxante loxo di tàllal suñu loxo tam bépp beneen mouvement boo xam ne jàpp nga ni yaa ngi ci département te gisoo sa bopp ci réew mi te bëgg nga yow taxawal sa askan nga ñëw fekk suñu ñu ànd liggéey ko ñu ngi nag tàmbali parce que ñun Dakar gi lañ dëkk du dëgg Dakar ñu ngi koy tàmbali taxawal suñu ay cellule taxawal suñu ay taxaw suñuy comité mais sur le plan national et même diaspora bi am na ñoo xam ne ñu ngi ñuy fekk si ñu ngi xaar ñeneen itam fekk si ñu ñu def loo xamante ne bu boobaa waxuma la peut-être majorité parlementaire parce que xam nañ ni wax dëgg yàlla euh, parti yi fi nekk tamit am nañu dayoo bu toll ni bu ñu ñëwee ñun bokk ci langue bi xëy na mënuñoo am une majorité parlementaire mais jàpp nañu war nañu mën a am au moins un groupe parlementaire pour mën a porter ay lois yoo xamante ne njëriñu askan groupe parlementaire waaw loolu de mooy sunu mbébét. Ah, mais may ma loolu moom <laughs> loolu moom euh, est-ce que du ngeen xalaat ay 4 députés 5 députés. non non bu doon ay xalaat 4 députés cinq députés dañuy jéema xool fan nañu bokk suñu bopp ñu daal di dem li ñu tax a jóg mooy gëm nañ ñi sénégalais yi xam nañu seen intérêt ndaxte dëkk bi léegi c'est un peuple mature nit ñi xam nañu lu ñu bëgg. te itam li ma la wax moo ci nekk fas yéene wu ma cee dem man kese fas yéene naa ànd ak ay sénégalais ay sénégalaises yoo xamante ne kenn ku ne ci ñoom am nga valeur fa nga toll am nga dayoo boo xamante ne tey sa waa gox wóolu nañ la te doy nañ doy nga leen pour nga mën leen représenter ci pencu ndaw réew mi ah, donc bu ñu amee groupe parlementaire dinañu mën a euh, euh, euh, teg proposer ay projet de loi dinañu mën a participer ci projet de loi yi nga xamante ne yeneen dinañ ko mën a teg pour mën a nekk njëriñu askan bi mais dinañu mën a tamit apporter une l'action du gouvernement parce que nag fa la mbir mi nekkee parce que wax ji mooy euh, gouvernement bi ñun ñu ngi koy ñu ngi koy topp ndax ñu ngi ci opposition bi ñu ngi xool li muy def di ko wax mais nag buñ ñu joxee mandat ñu dem nekkal askan wi ca parlementaire ba dinañ mën a tax ba ñu mën a saytu la ñuy def ak la ñuy wax ca ca base ba di ko wax. may mais euh, Maimouna Bousso gis nga fii ci Sénégal ñun ñun ñëpp nemmeeku nañ ne. Euh, ci wàllum politique jigéen ñi ñoo ci ëpp euh, taxawaay maanaam mobiliser bàyyi seen seen jot seen temps mbirum fidélité tamit boo xoolee presque si jigéen ñi la. Mm-hmm. ndax góor ñu baree bari mën nañoo ànd ak yow nga jox leen xaalis mais bu vote dese mën nañ la mën nañ la wor et tout ça loolu mën a nekk mais yéen jigéen ñi euh, ba léegi nii est-ce que ci Sénégal askan bi ñoo ngi leen di wóolu daal ngir dénk leen ndomba tànk ci lu jëm ci dénk leen réew mi walla dénk leen. ngeen dem assemblée nationale wala dénk leen ay mair mairie gis nañ ne ba léegi dafa mel ni sénégalais yu bëree bëri euh, gisee gisee guñ noonu. déedéet jigéen ñi jigéen ñi wóolu nañ seen naw la jigéen ñi bu baax a baax parce que fépp fu ñu leen tegal candidatu jigéen tabb nañ ko. xam nga luy wax ji no ndax góor ñi woo askan wi non man gëm naa ne askan wóolu nañ ñu parce que tey wóolu nañ jigéen ah kay mais yéen chaque jour bu ñu dee xam nga loolu xam nga loolu yi loolu nag lu ko indi mooy parrainage bi président Macky Sall moo ko bloqué lu ñu mettit lu woon la parce que amoon na ay candidat jigéen Amsatou Sow Sidibé mu fi woon Aïssata Tall Sall mu fi woon ñeneen a ngi fi woon président Macky Sall moo bloqué seen candidature waaye tey li la bëgg a xamal mooy ne ñun de ñi nga xamante ne ñu ngi waxtaan ak ñoom demaguñu ci kenn koo xamante nee nañu ñun wóoluwuñu jigéen ñi au contraire ñëpp la seen xel dal ni mbir mi balaa muy sotti il faut jigéen ñi bare ci il faut jigéen ñi dugg ci seen loxo parce que nag yow xam nga ni moos ay kuyu kese mënuñoo toog wër taabal gi naan dañuy doxal réew mi mënta nekk te nag jigéen ci suñu culture ñun depuis ci suñu ay maamaati maan jigéen ñi dañoo mës a am seen kàddu mës a am seen taxawaay boo xamante ne ñëpp ñoo ko nawlu man de yaakaaruma loolu te am naa yaakaar ni surprise dina am parce que nag même suñu nawle jigéen ñi ñuy wax ne ñooy mobiliser ñooy nekk ci ginnaaw des fois dañuy féewale jigéen ñooñu tey bu seen moroomu jigéen boo xamante ne doy na leen taxawee ci seen kanam gëm naa ni dinañ jël seen kàddu. waaw li wax foofu mooy parti politique yi fi nekk. Mhm. boo xoolee engagement bi fi jigéen ña fa bokk nekk boo demoon PDS wala parti socialiste. Mhm. la nga dem benn bokk yaakaar engagement bi jigéen ñi am. Euh, dafay am doole trop ci wàllum politique maanaam li ma bëgg a mooy jigéen ñi dañuy sonn ci wàllum politique waaye bu ñu nee ba tabb des ci presque góor ñi la ñuy tabb loolu laa bëgg a expliquer. loolu ñàkk moyen daf koy indi parce que góor ñi ñooy choisir parce que boo xoolee tey boo limee 300 partis politiques yi ne Sénégal peut-être juróom moo ci nekk yu ay jigéen jiite li ci des ñëpp góor ñee ko jiite góor ñi bu ñu faloo décret yi góor ñi lañ koy jox góor ñi ngi ñoom la ñuy jël de leen ay ministre ñoom la ñuy jox ay direction général ñoom ñoo yor koom-koom gi te xam nga politique tamit dafa nekk mbiru koom koom-koom parce tey waxuma koom-koom booy jox askan bi parce que askan bi moom moom moom yeewi na boppam ci loolu ndax askan bi léegi wane na ni euh, ngor ak dignité ak ku mu wóolu moo ko gënal alal parce que tey ñu bare ci élection locale bi yoroon ay ay ay ay direction ay ministère bañ demee askan wi dañ leen a foli fan ñoo xamante ne defaluñ leen dara mais yaakaar lañ am ci ñoom donc loolu côté boobu tëral na xel mais boo bëggee def politique di nga def am déplacement di nga am budget boo xamante ni di nga ko demee ci nit ñi te xam nga ne jigéen dafa nekk yaay nekk nekk yore kër nekk soxna nekk lépp tax na ba jigéen ñi tey Euh, pour ñu jël pour ñu am yenn moyens yi nga xamante ne moom la ñu yore seen kër génne ko di ko investir ci politique yombul mbiru koom-koom la itam càmm ñi tamit jàpp ñu ci parce que tamit góor ñi tey bu ñu demee ku ci ne sa bopp ngay jiital parité bi jàpp nañu ni parité góor jigéen la balaa ngay nekk jigéen góor dañ jàpp ni parité mooy benn góor benn jigéen donc loolu day indi boo amee benn poste ku góor ki moo ko yóbbu ko jigéen ki moom moo liggéey liggéey bi yépp mais ginnaaw lay féete loolu nag bokk na ci la tax ñun ñu engagé wu tey ñaan suñu frères yi ñu ñëw suñu ginnaaw puus ñu du ñun suñu jëmm la ñuy puus mais pépp képp jigéen la ñuy may fit xamal na ni am nga sa place ci société bi xamal na ni góor ñi ah, wóolu nañ la xale yi wóolu nañ la société bi bu baax a baax jox nañ leen waa xam nga xam nga xam nga place ci société bi euh, parité dafa nekk loo xam ne mbiru élection la xam nga ne sëñ Abdou Khadir parité 2010 dañ ko amoon tey ñu ngi 2022 fukki at ñaar ñu teg ko ci tey gis nga ba ci liste ville de Dakar bi respecté wul parité te nag loo xamante ne la wax dëgg yàlla bu fekkonte ne jox nañ ñu suñu cër du loo xam ne waroon nañ ko laam-laamee tey jii 2012 après ñu toog di expliqué nii lañ ko war a defee dafa nekk loo xam nit ki ànd ndawle la jigéen ñi ak góor ñi ñoo bokk penc mi ñoo bokk réew mi ñoo bokk kër gi di defar kon tey bu ñu demee ba ñun ñu xeex ñu may ñu jox am teg suñu loxo loo xamante ne euh, dafa nekk loo xam day day réparer euh, inégalité dafay tax ba jigéen ñi nga xamante ne ñooy wàcc seen kër yi wàcc seen doom yi wàcc seen lépp di mobiliser comme ni nga ko waxee di topp ci góor ñi di jàppale lépp ndax góor ñi falu parité kese mooy boo tegee benn góor tegal benn jigéen bu compétent parce que nag ñu bàyyi compétence ndax jigéen ñi nekk ci politique wala nekk ci yeneen gox yi ni góor ñi da dayoo rek noonu lañu dayoo mais dangay gis tey ku nekk maire jël premier adjoint def ko góor te teguñu ko fenn parce que loi bi waxul loolu kon nag bu ñu joxee suñu cër mooy nañ ñu delloo li ñu moom. d'accord loolu mooy dëgg euh, mais may mun a Bousso euh, force citoyenne est-ce que tey euh, bu paasee yow. am na ñeneen ñoo xamante ni ñun nit ñi xam lañ ci wàllum politique wala ñoo xam ne. Euh, ay nit lañ yoo xam ne même su dee amuñu baas politique ay nit lañu ñu wekk ci réew mi ñoo xam ne tey bu ñu waxee rek nit ñi dañ leen dégg ndax ci wàllum politique da ngay soxla ñu baree bari da ngay soxla koo xamante ni am na cër ci réew mi nit ñi respecté nañ ko euh, da ngay soxla ko am mbooloo di nga soxla koo xamante ni tamit ku yor alal la ku yor xaalis la ndax euh, comme li nga ko expliqué sànq day soxla moyen léeg-léeg ndax am ngeen ay kàngam yu nit ñi am ci seen kuréel googu waa ñu ngi tabax di dem te bugguma nga ne ndax surtout ay nit ñu ñu ñu xam ndax man citoyen lambda daala ci ci waaw ci base boobu xam nga xameel bi mooy peut-être média yi mais tey am na gox yoo xam ne su ma fa demee ka fa représenté force citoyenne moom la ñu gën a xam ne man parce que mm-hmm. moo dëkk ak nit ñi mooy jaxasook nit ñi mooy demante ak nit ñi peut-être sur le plan médiatique moo xam télé yeeg rajo yeeg ak waxukaay yi voilà loolu moo mën a tax ñu xam ne loolu nag moo tax nag coalition bi Euh, fas yéene nag wane boppam te bu jógee ba taxaw dinañ xam ne am na ñeneen ñu nekk ci ginnaaw Maimouna Bousso ñoo xam ne ñoo ko gën a dëggu ñoo ko gën a xarañ ñoo ko gën a bëgg Sénégal xëy na rek dañoo nekk ci seen ruq doon liggéey donc ah, loolu nag ngeen am ñoo xam ne aussi ñooy ñooy ñooy wax nit ñi dégg leen waa dina am dina am li nga wax sànq man nga nekk ci benn gox man mhm. euh, nga amee nit man nga dëggu et tout ça mais doo am benn fasaaxa boo xam ne di nga mën a communiquer ak nit ñi. waaw mais askan wi mooy voté xam nga man. mais askan bi il faut nga wax leen lu leen. waaw ma ne askan wi mooy voté. xam nga yow il faut nga wax leen lu leen. waaw mais xam nga askan bi ci naan ñëpp soxlawu ñu ñëw ci média yi pour wax ak askan bi am na ñoo xam ni ci seen biir koñ la ñuy ne di wax ak seen ay seen ay nit di dox ak seen ay nit di ràbb ak seen ay nit tey yow mën nga ne ci télé bi suba ba ngoon di wax te yow waa koñ ba ak waa mbedd ma xamuñu la ndax wàcculoo fa moo tax ma ne la nag coalition la dañuy ànd boole man am na liggéey boo xam ne maa ngi koy def mais ñi nga xam ne ñoo ne sama ginnaaw di liggéey li ñuy liggéey man liggéeyuma yu genn wàllam parce que ñoom ñoo nekk au contact des populations directes ñoom ñooy dugg ak nit ñi ñoom ñooy waxtaan nit ñi ñoom ñooy ràbb ñoom ñooy dox ba guddi ñoom ñooy dox bëccëg ñoom ñooy dox ndox mu tàng heure bu tàng léegi nag loolu noonu moom la ñuy jël capitaliser ko boole ko mais bien sur di ngeen xam parce que nag ay candidats la ñuy am du benn candidat kese la ñuy am il faut ñu xam loolu. du dëgg dinañ présenter ay candidats ci ay département dinañ présenter ay candidats sur la liste nationale te su boobaa di ngeen gis ne ay nit la yoo xamante ne kenn ku nekk ci ñoom waroon ngaa mën a jiite liste bi. waaw mais bu euh, Bousso tey euh, est-ce que yéen seen force citoyenne bi du ngeen dem ba sa cëppaandaw ga ñu gis ne xaw ngeen am organisation bu mucc ayib yenn coalition yi fexe ba dugal leen ci seen biir. waa ñun suñu bébét. dañ koy wax tey ni ñu ko waxee woon démb mooy opposition bi def ñaari bloc yu dëgër ñun gëmuñu benn bloc mosuñu ko gëm parce que euh, ay nit bu ñu bokkul principe li ma la wax sànq bu ñu ne dañuy ànd dañuy naxante ànd intérêt lay doon mi du ànd ngëm-ngëm ñun gëm nañu ni opposition bi nii mu tëddee te nag ñu bokk ci biir depuis des années di ci militer xam nañu ni opposition bi të tëggee pour mu sincère dafa war a am ñaari bloc yu dëgër jàkkaarloo ko blocu majorité bi nit ñi mën a dem assemblée nationale parce que am na ñoo xam ni quelque part dañu nekk ay centriste sentiruñu seen bopp ci opposition radicale mais nekkuñu ci pouvoir ñooñu nag il faut ñu am seen yoonu bopp dem ñi nga xam ni nag ñoo jàpp ni ñoom laalewuñu benn yoon ak pouvoir ak nguur ñu def seen yoonu bopp tey bu opposition bi taxawoon man moom dama jàpp ni laalewu ma benn yoon ak voilà peut être ci njëriñ radical laa ko mën a jàppee ñenn ñi ñoo a jàppee noonu mais man dama jàpp ni opposition simple laa nekk parce que nag mbir mi dafa war a leer dafa am opposition am pouvoir ni pouvoir nekkee ci constitution am li mu war a doxal teg gouvernement am teg teg politique am noonu la opposition itam taxawee war a contrôler war saytu war a critiquer war a tamit euh, wane fi nga xamante ne baaxul ak tam def ay proposition parce que nekkul rek da nga naan lii baaxul mais am loo proposé dem bokk ci benn bloc mën na nekk déggoo li ma la wax loolu mooy sunu mbébét bi gën mooy na ñëpp ànd mais dama li na euh, euh, daf daf danoo toogoon ci loolu di ko togg ci local yi mu am lu ci sooxee kon nag mënatuñoo xam nga politique tam expérience la mënoo lu la daloon démb nga bañ mu dalaat la tey te comme nag ñun ñëpp ci askan bi la ñuy dem mu woteel ñu kon ñun dafa jot ñu di jël suñu responsabilité dem ci askan wi dékk ko suñu ay kaddu tamit laaj ko baatam parce que baat bi nag baatu askan bi lañ fi nekkal du mbiru parti politique du mbiru coalition bu am xaalis du mbiru coalition bu am alal nit mën naa ne ci parti ne ci kër. ne ci gox mais yéene kàddoom keneen koo xamante ne ab citoyen la wala liste la boo xamante ne gëm na ni liste bi moo gën a dal xelam. d'accord jërëjëf euh, Maymouna Bousso mbokk yi moom moo jiitee euh, force citoyenne euh, moom la ñu invité tey ci seen émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM Maymouna Bousso caution bi 15 millions la bala ñuy wax ci caution bi sax il faut ñu revenir daal tuuti ci opposition bi. Mhm. ndax dafa am opposition boo xam ne dañu jàpp ne soriwuñ pouvoir. am opposition boo xam ne euh, ñu radical lañ ñoo xamante ni moom ñii xam nañ ne euh, laalewuñu ak euh, ak nguur. ñenn ñi tamit jàpp nañ ne dafa am opposition boo xam ne Macky Sall la ñuy liggéeyal dañoo nekk ci biir opposition bi di ruube. Mhm. yow lan moo ci sa xalaat. waaw li ci sama xalaat mooy déjà di wax ne ñun ñëpp ñu ngi taxaw di déglu mbir yi di am fan yi war a ñëw muy ay gouvernement yu bees yeeg xëy na mu am lu mu leeral. may wax ne ñaar itam moo am am na opposition boo xam ni ñoom defuñu seen rôle d'opposant parce que opposé wu à président Macky nekkul ne dama bëgg wala dama bañ Macky Sall mooy ni muy doxalee projet de société ak yoon bi mu jëmale réew mi ak acte yi mu teg baaxul ci askan wi te ma gis ni du intérêt askan bi mu opposé wu à ça donc yoon boobu dafa war a leer te quand on s'oppose on pose des actes quand on, on tamit on prend la parole contre parce que opposition mënul nekk euh, mbiru tappale mais voilà mais am na ñoo xam ni itam dañoo euh, nekk ñoo xam ni comme li ma la wax sànq dañoo centriste ñoom dañoo gis ne euh, mbir mi tey mën naa baax suba mën naa bon donc ñoom c'est en fonction de acte yi mbir yi dañuy xaw a ni ñuy def gymnastique jàpp ma ni lu bon la parce que ñoom xëy na noonu la ñu ko gisee mais li ma la bëgg a xamal mooy tey opposition bi askan wi wane na signal fort ni soxla na opposition bu am doole ndax opposition bu am doole nag mooy tax nga am pouvoir bu la respecté ndax nag nit ki doo ko jox lépp dem tëdd nelaw boo ko joxee lépp tam da ngay jël lu ñuy wax contre pouvoir nga jël ko dénk ko ñoo xam ne itam jar nañ koo dénk parce que nag gis nañ fi itam ñoo xam ni dañuy ñëw ne opposition lañu wax ba sénégalais yi jël seen kàddu jox leen ko ñu wëlbatiku itam dem transhumé dem pouvoir di la wax ay wax yi liggéeyal président Macky Sall ak juboo ak moom yooyu yëpp ay xeet la yoo xam ne nag Abdou Khadir sénégalais yi ñoom ñoo koy faj nu ñu koy fajee mooy identifier ñi nga xam ne jàpp nañu ñii ku leen jox kàddu du ñu dem ñu jël kàddu yi jox ko ñooñu ñi nga xam ne nag seen position dafa ambigu wala dafa leerul wala dafa clairul ñu abstenir jox leen seen seen kàddu parce que sinon itam euh, mbir mi day continuer di tourner di dem rek parce que gis nañ fi ñoo xam dañuy dem ba assemblée nationale daa di daa daa di daa di taxaw ci digg bi parce que euh, léegi moom assemblée réglé na ko bu fekkente ne parti moo la fal soo transhumé da ngay perte sa mandat mais bu fekkee coalition moo la fal boo boo transhumé itam doo perte sa pouvoir donc loolu moo tax tamit yenn coalition yi tamit askan wi nañ ko seetaat bu baax a baax xam ne am na ñoo xam ni dañuy préférer dem làqatu ci coalition yi pour juste mën a am poste bu ñu eggee jël loolu jox ko jox ko président Macky Sall. mais est-ce que tamit euh, Maimouna Bousso yow yaa nanguwut a topp ci ginnaaw nit. déedéet du loolu sëñ Abdou Khadre ñun bi ñu commencé engagement politique ba léegi mosuñoo jiite dara ñun bi ñu fi ñëwee. di def politique non mais ànd si ginnaaw benn coalition wala benn. li doon jafe na jafe. Euh, sunu trajectoire sénégalais yi xam nañ ko bi ñuy doore militer dañu dañu militer juste comme des citoyens lambda euh, pour contre les injustices soutenir nañ fi candidat Karim Wade ñu jàpp ko ci CREI yi euh, jàpp ko ci ay jàpp ko ci ay mbiru loolu. dañ ko jàpp ngay ngay xeex injustice. waaw ñu mais déedéet politiquement mosuñu dugg ci benn parti mais mais 2017 suñu mouvement xalaas dem na ci coalition boo xam ne Abdoulaye Wade moo ko jiitee 2019 suñu mouvement jàppale na Idrissa Seck kon nag tey tamit jot na 2022 sunu mouvement gis ne expérience yi mu def di topp ci ginnaaw ay nit di leen jàppale di leen soutenir tey lii mandat la ñuy laaj te un mandat se demande au à titre individuel mandat bi ñu ko demander ci turu kenn ci suñu turu mouvement lañ koy demander même bu ñu doon dem suba bay ànd ak coalition il faut sénégalais xam ni ñan la ñu bëgg ñu tànnal ñu ci biir force citoyenne. parce que nag ñun ñooy répondre demain au peuple sénégalais ñun la sénégalais taxaw nañu yéen nañu laajoom suñu kàddu ana lu ngeen ñu defal ana fu ngeen ñu demal ana lu ngeen ñu waxal donc loolu moo tax vraiment léegi nii c'est tout à fait normal ñu taxaw am na am peut-être deux mille vingt 2022 2024 ñu topp ñu jàppale beneen leader pour mu falu mën naa am nekk gu ñu foofu ñun mësuñu am problème boobu ñun ah, intérêt Sénégal rek moom la ñuy xool waaw mais euh, peut-être tamit yow mën ngay xeex Sénégal mais est-ce que tamit du loo xam ne da nga ko jàppal euh, régime bi. déedéet mënu ma mënu nekk loolu. parce que président non président Macky ñun ñoo ko fal. xam nga nee naa ñun bi ñuy dikk euh, militer injustice lañ doon xeex ñun injustice bi ñuy njëkk a xeex mooy injustice bi ñu jàppoon ne président Macky def daf ko subir en 2012. 2012 ci la ñu jóg dem voter parce que jàpp noon nañu nii Euh, troisième candidature du régime libéral c'était trop te dañu gëm ni ba léegi troisième candidature ñun duñ ko nangu. ni ñu ko bañalee woon président Ablaye Wade ba xeex ak moom bu ko président Macky Sall bëggoon def noonu la ñuy xeexee ak moom donc ñun amuñu problème. mu conscience boobu du bàyyi mu dem conseil constitutionnel. duñu egg ak moom foofu. parce que président Ablaye Wade président Ablaye Wade li tax ñu egg ak moom foofu mooy moom c'était un démocrate. Macky moom c'était un démocrate président Abdoulaye Wade président Abdoulaye euh, Macky Sall jéego yi mu teg. du démocrate du démocrate. donc du ñu egg moom ci conseil constitutionnel parce que conseil constitutionnel président Macky Sall daf ko jël daal di koy toroxal ba nga xam ni doom représenté tul lu bëri. conseil constitutionnel conseil constitutionnel parce que euh, gis nañ parrainage yi nu fa nu mu demee gis nañu euh, bi mu waree wàññi mandaawam def ko cinq ans. jële ko sept ans nu mu làqatoo ci seen ci seen ci seen ci seen ci seen ginnaaw ak yeneen ak yeneen i acte donc ñun président Macky Sall moralement moralement le treize personnes faatu 2012 te ba ñuy faatu ñu ngi àndoon ak ñoom ñun place de l'obélisque gii di xeex parce que président Abdoulaye Wade amutoon droit def troisième candidature mu dikk ñu ko moralement noonu mu ñu ko diggee moralement noonu leen dul nangoo parce que nag balaa mbiru Euh, euh, loi ak régime kàddu mu ëpp solo loolu dañu dul egg ak moom te fi ñuy waxee ay dina am ak du am dina légal fu ngeen yegg ak moom ko du ñu egg ak moom foofu yëpp te man gëm naa ni président Macky Sall bu ñu jógee ci euh, législative 2022 yi sénégalais yi dinañ gis ne dina wone beneen taxawaay parce que déjà local yi xam nga nga nekk jiitum réew war a fal premier ministre depuis deux mois amu fitam gisoo amu pexeem parce que la nga yaakaaroon lépp dafa daal di nërmeelu dégg nga sa ay sa ay candidat say ministre ñi nga xam ne ñoo gën a taxaw ci sa gouvernement say kàngam ñoom ñëpp sénégalais yi daal di leen weddi teggi leen teg leen fële tey nga war a teg un premier ministre nit ñi di wax naan ci opposition bi nga koy yaakaar donc kooku foog naa ni tey Euh, il est à trois appuis la nekk bu fekkente ne ci làmb la ñuy wax kon gëm naa ni bu ñu jógee ci législative dina tal leneen lu dul ngeen li ngay wax ni ay mbiru troisième mandat ak yooyu. d' accord léegi euh, Maimouna Bousso euh, sànq yow nee nga li ngeen xeex mooy réew moo xam ne réew mu tegu ci tegu ci dëgg. tegu si njub. nga ne da ngeen Macky Sall da ngay gis ne yoon muy jëmee réew mi du intére réew mi mais. bu ñu xoolee dafa bëri lu fi Macky Sall def ci ay réalisation yu demee noonu est-ce que amul benn yoon bu mu la convaincre que ne Macky kat 2012 euh, ba na mu doon doxee baaxul mais dem na ba commencé jubbantiku ndax mu nemmeekoo goo ci mandat boobu ba léegi fu Macky Sall jubbantikoo. sëñ Abdou Khadre ñaata lañ jox président Macky Sall ci ay milliards pour mu def lu muy def. xam nga président ñun duñu la juger ci li nga réaliser parce que président Macky Sall ay milliards yi milliards. la téye ci loxoom yaa ngi dégg ci euh, fukki at ak ñaar yii mu fi nar ne pour liggéey li muy liggéey at bu yàlla sàkk dañuy voté ay budget yëkkati ko teg ko ci loxoom. plus de 5000 milliards. dégg nga 5000 milliards nga multiplier ko sur le nombre d' années loolu xaalis bu baree bare la donc c' est tout à fait normal que président Macky Sall defar ay tali di defar ay train di defar ay stade bu ko deful lu muy def parce que milliards xanaa du ko jal toog ci. donc c'est normal mu liggéey xam nga lan moo taxoon ñu fal président Macky Sall Sénégal réew la bu ñuy tabax. mais li nga wax nii lépp bokk na ci tax ñu fal ko defal ay waaw mais loolu dama la bëgg a wax expliquer loolu c'est la moindre des choses que réew tamit du tali kese ak ak i infrastructure. mais ko bëgg euh, li tax ma koy tuutal mooy fépp foo gis ñu def cent cinquante milliards luubal nañ ci cinquante milliards ndax transparence amu ci ay marché gré à gré am na ci ay yaama neex am na ci gis nañ ci yeneen réew. ñu def fa lu mel noonu mu mu coûter moins cher kon nag munu mënuñoo tàccu ci lu mel noonu stade yi ñuy ndamoo am na ci réew yu ñu wër te eggul ci prix boobu train yii ñuy ñuy tiitaroo am na ci yeneen réew te eggul ci prix boobu BRT bii ñuy wax am na lu ko gën a doon priorité dëkk bi amul hôpital ku fi feebar da ngaa génn ak yeneen ak yeneen kon ñun mënuñu wax ne liggéeyul dama ni li muy def nii euh, tuuti na ay la yéwén baax na na ko yokk mais sunu xaalis lañ ko jox pour mu di ci liggéey loolu ndax alal ji da koy fay ci impôt ma di ko fay ci ay taxes keneen ak keneen ñu koy dagg ci salaire am kon sunu xaalis la jël du nag loo xamante ne ba pare yëpp ci di ko fay di fay ay ñoñam di leen jox carburant di leen fayal essence di leen fayal téléphone kon seen normal ñu liggéeyal mais xam nga ñun fu ñu doon xaare président Macky Sall te fu ñuy xaar président de la république dëkk dafa am koy tabax du ay tali kese ak i ak ak i pont li tabax dëkk bi moo ay institution dëgër mooy ay loi yoo xamante ne kenn du ko wàcc kenn du ko jéggi. mooy réparer inégalité. mooy nga jël askan wi ki nga xam ne amul dara ne ca fongale mi am sañ-sañu dugg école faju bu yem ak ki nga xamante ne mu ngi Dakar. Mhm. ki nga xamante ne itam ay sénégalais yu juddu ñoom ñaar ñëpp ci ndey ak baay kenn ku nekk am égalité de chance mën a jàng mën a lekk ba suur mën a am possibilité accès à l'eau accès à la santé accès ak yeneen ak yeneen des besoins primaires. nga teg ko mais nga teg ay loi teg ay institution fooral sa sa ay sa ay sa ay institution parce que tey boo jëlee institution yi dammate ba mu teg teg ci suuf assemblée damm nga teg euh, la nga ñëwoon jëm jël ay ay ay institution yoo xamante ne kenn xamul njëriñam ay haut conseil des collectivité HTC ñëw teg def ci ay milliards njàngamee njàngale bi ñu ngi ci mbedd mi di ñaxtu amuñu xaalis nga nga nga téye seen biir chaque jour xale yi ñooy obligé bu ñu jàngee 9h débrayé xale yi sa bopp dem ba dugg ci grève bi loolu yëpp ay manque de vision la fi ñu ko doon xaar moom mooy mu tabax Sénégal boo xamante ne nii euh, ay prédécesseur am ñëwee kenn ku nekk teg benn jalon moom mu ñëw teg ci parce que nag moom produit wu Sénégal dafa jàngee Sénégal màggee Sénégal tekki biir Sénégal donc moom xam na processus bi yëpp jaarul fenn kon moom processus boobu tey président Macky Sall amoon na possibilité wax dëgg neex yàlla te ce n'est pas trop tard mu teg ay mu teg ay jéego yoo xamante ne bu ëllëgee dina tax ba dinañu passé yenn étapes yi nga xam ne duñ fi mën a ñëw président bu ñëw ñuy wax nañu laal ci constitution bi lii nañ ci roccilee nañu voté lii nañu voté lii parce que voté ay loi te doo ko appliqué amul sens. d'accord mais may mën a Bousso lu jëm ci wàllum euh, euh, confiance bi euh, Sénégal dañuy faral di wax ne dafa am benn. manque de confiance bu am ci diggante sénégalais yu bari ak euh, justice bi mm-hmm. ndax président Macky Sall gis nga ne lu jëm ci wàllum delloo siwaat yaakaar ci justice bi est-ce que jàpp nga def na si jéego lu mu waroon na njëkk a def la parce que moom dafa nekk victime nekk assemblée nationale ñu euh, bundu xataal ko euh, nangu mandaawam parce que àndutoon ak nguur gi nekkoon ak moom mu am ay jafe-jafe tey mu waroon a minimum mu def indépendance de la justice mu taxawal justice de telle sorte que keneen ku ko remplacer ëllëg doo mën a jël sa loxo di ko teg ci justice bi mais moom gis nañ ni daf ko def arme politique di ko utiliser loolu moo tax ba mu ko yëkkatee ñun ñoo njëkk a taxaw ah ba mu bëggee daal ci kaw euh, Khalifa Sall ak keneen ak keneen ñu ñoo njëkk a taxaw ne ko du ñu d'accord ci loolu parce que du lii la ñu waxanteeg moom rupture la ñu teg moom. beneen bi mooy président Macky amoon na possibilité. bi ko Sénégalais yëpp falee parce que il a été très bien élu 65 pour cent des Sénégalais ñoo ko fal devant Abdoulaye Wade ce n'est pas def séparation de pouvoir moom ci boppam mu démissionné ci instance su APR nekk président de tous les Sénégalais defu ko magistrature bi mu ngi ci ak loxoom législative bi mu ngi ci ak loxoom loolu mooy yi nga xamante ne moo tax ñun ñu jàpp ni euh, président Macky Sall nous a déçu a déçu le peuple sénégalais parce que nag euh, boo jëlee réew fekk fii ku ñu doon wax le bâtisseur ki ko jiitu mais nit ñi dañ ko folli parce que nam doon tabaxee ay tali noonu la doon tojee màbbalee ay jikko di màbbal ay institution ñu ne bëgguñu loolu ñun dëkk bu dëgër la ñu bëgg dëkk bu taxaw dëkk boo xamante ne ku ñëw doo ci mën a def la nga yàgg si opposition nag waaw man gëm naa ne di si yàgg trop léegi <laughs> waaw suma suma papa suma waajur bu góor ma di ko nuyu di ko jaajëfal moom laa njëkk a tàggu dafa ma wax ne ma moom dafa liggéey ci gouvernement ci commandement territorial ay at yu baree bare ba jël retraite am mësta ànd ak nguur état la àndal mais mësta ànd ak nguur parce que ku falu moom dafay continuer di nekk ci ay principal am euh, ñun euh, wutuñu nguur xalaatuñu nguur ñun xam nga lu ñu bëgg falul askan wi nguur gi nag bu fekkente ne yàlla def na gisaguñu ko mën naa am mu am koo xam ni suba di nga nekk président de la république mate lii yépp ñuy wax su boobaa dinañ ñëwaat fii ci yéen ne leen gis nañu ko ci diw dinañu dem ànd ak moom jiite réew mi. waaye bu amul itam gëm naa dinañ continuer rek comme li nga wax dina ci opposition bi di nekkal ci askan wi parce que gëm nañ ni itam loolu am na jeexital bu mu mën a am ci askan wi parce que askan bi tamit soxlawuñu rek ñëpp nguuru. ñëpp fàtte seen ay soxla parce que tamit loolu tamit day tere. day tere te mbir yi avancé. d'accord léegi euh, Maimouna Bousso euh, caution bi 15 million la lan moo ci sax. bare na trop bare na trop ma di ko reprocher acteurs politiques yi ñoom ñëpp dans leur ensemble. 2016 euh, defoon nañ fi benn dialogue ñu waxoon euh, déjà ñun euh, indépendant yi la ñu mën a wooye seen bopp suñu bopp mooy ñun citoyen yi nga xam ni yoruñu récépissé parti dañ ñuy laaj parenage foo xam ni duñ fa laaj parti parti récépissé dañuy indi même bu fekkente ne parti cabine téléphonique lañ juróoma ne seen ginnaaw dañ leen koy nangul ñun dañ laaj parenage loolu déjà du yoon teguwul fe teguwul fenn parce que ñu bare ci ñun finalement dañuy mujjee dem and ak ay parti politique pour mën a teg mhm. Mhm. récépissé xam nga kon loolu loi boobu wala abri si loolu loi boobu des naa mat beneen bi mooy euh, opposition bi dafa proposé juróomi million majorité bi proposé quinze millions ñu jàppoon ni ci diggante bi waroon nañ koo mën a xaaj au moins parce que xaalis warul nekk frein pour daa taataan baatu askan wi parce que mhm. tamit Euh, xaalis am na solo pour que nit ki mën a jënd carburant dawali oto dem ci askan wi loolu c'est normal mais xaalis waru mën a nekk critère pour exister ci politique ay jom jikko yu baax valeur yu baax moom la ñu war a xool ci nit ki mais pas am xaalis parce que lii tam bokk na ci li tax euh, schéma politique bi du mës a clair parce que toujours ñi am valeur am valeur te nekk nit ñu baax bu ñu yoree ay 15 millions dañ koy jël dimbalee ko seen ay mbokk financé ko ay jigéen dimbale ci doomu doomu doomu jaamu yàlla yi te yàlla rek tax duñ ko jël di ko def ci politique ñeneen ñi nga xam ne nag politique seen métier la ñoom dina leen jaral parce que ay ay ay chef d'entreprise lañu ay businessman lañu ñoom dañuy investir ci politique pour suba ñu am ay poste mën a rembourser seen investissement ñooñu toujours ñooy taxaw ndaxte critère xaalis bi moom la ñu teg mais nag ñun ay la yëwéen ñu ngi invité mouvement yépp ñu bañ a taxaw ci ginnaaw caution bi parce que caution bi gën a am solo muy caution askan bi te gëm nañu ni askan wi bu ñu demee nit ñi ànd dem ci ñoom ñun sunu caution sax gëm nañu ci askan bi lay jóge comme ni nga wax sànq am na ñoo xamante ne dinañ ñu jàppale euh, xaalis bi du may mën a busa moo koy teg du keneen ku ne ci ci mouvement bi moo koy teg. ay sénégalais yoo xamante ne kenn ku nekk ci ñoom di nga yëkkati li nga yor jox ñu ko parce que wóolu nga ni il faut que ñu boole suñu kàddu. ci mbir mi d'accord euh, lu jëm ci wàllum caution bi ndax jàpp naa ne. Euh, Euh, état bi warul laaj benn xaalis bi même bu doon caution mënoon a nekk un million lan mooy pertinance u indi costion ba pare indi parrainage man ma jàpp ne bu doon tey dafa bëgg a limiter yi kese du wax caution euh, ndax boo laajoon vingt millions sax teewul liste yi dina bëri waaye euh, parrainage bi lan moo tax ñu teg parrainage bëgg a teg caution. mooy li ma la wax. loolu yëpp loolu yëpp amul pertinance hmm. déjà caution bi dafay fausser jeu bi parce que di gis koo xamante ne bëgg na. amul. Mhm. donc ci saa si mën naa réussir te voilà mën na yor parrainage du am xaalis donc day mujjee day mujjee teg loolu yëpp c'est pour filtrer. Mhm. te bu ñu filtrer pour permettre toujours au même parce que nag gis nañ ko fi parti politique dañoo nekk vers le déclin dañoo nekk ci Sénégalais dañ leen a weddi. ñoom ñi nga xam ni nag ñoo yor parti politique te ñu bare ci ñoom nekk ay kàngam yoo xam dañ fee yoroon ay ndombal tànk ci réew mi ñoom ñoo bëgg a continuer di tong-tongee mbir mi mbir mi des ci seen biir kese ba ñu ubbeeku ci citoyen yi loolu rek moo tax parce que tey koo xam ni euh, nekkoon nga fi yenn poste de responsabilité yi amoon yenn relation yi yow lee gën a yomb ci yow mmh. nga teg caution teg parrainage dina am keneen koo xam ni moo la ëpp valeur fuuf te moom loolu du ko mën a matale te pourtant bu ko sénégalais yi faloon moom mooy gën a amal njëriñ Sénégal même que ay nitam ay nit ay nitam ay promoteur mën na ñoo jóge fee jox ko xaalis mu dugal mu def campagne am dugal caution ëllëg mën na gagné euh, man na gañee am leneen loo xamante ni tey euh, mën na la ko jox intérêt la leen defal moom mooy loolu mooy business politique bi loolu nag pour mu dañ il faut ñu xeex li fi ne mais il faut itam ñu participer ci tabax leneen lii ñëw. parce que bu fekkente ne tamit xeex nañ ko rek te bokkuñu ci tabax lii ñëw du ñu du ñu réparer mbir yi moo tax ma ne la foofu la président Macky saal wooree Sénégalais yi parce que moom lii yëpp mënoon na ko réparer parce que moom xam na ni euh, bu doon xaalis mooy tax mu nekk ci politique. Mm-hmm. kon du egg fu mu egg parce que yorutoon xaalis bi muy dugg ci politique ay valeur am duggee woon ci politique ak compétence mm-hmm. mais tey jël na xaalis teg ko ci ci frein ci digganteem ak ay sénégalais jël na ay conditions yoo xamante ne parrainage bi système bi ñu ko nar a saytoo du système boo xamante ne dina indiwaat coow lu bare parce que tamit déjà parrainage su présidentielle wu ñu ko gis nga li fi amoon ñoo xam ne ba tey nangu wuñu parce que yow da ngay ñëw jëli sa parrainage ñëw jox leen ñuy ñuy wax naa ki njëkk a indi moom moom la ñuy jël ki mujjee indi euh, dañuy rejeté nombre même nombre i alors que du yoon yow war nga ma mën a parrainer parrainer beneen liste parce que nit ki parrainage mooy seulement wax ni yéene naa diw mu falu mais ça ne veut pas dire que dama damay voter nit euh, comme coow loolu wax ndax ci élection euh, locale am na coalition yoo xam ne seen list yu bari dañ ko rejeté est-ce que tey état bi ni mu euh, ni ñu ko tuumaalee ne dafa rejeté woon ay candidats 2019 est-ce que mënu koo rejeté tamit yenn listu parrainage yenn coalition ci opposition bi ci yenn département yi ndax xam na département yoo xam ne boo xamee ne département Pikine bi sept député la wala cinq député département Mbacké cinq député la nga fexe ba coalition bi nekk ci opposition bi ëpp fa doole nga fexe ba invalider foofu ay listam na ko mataloo parrainage wala sa parrainage baaxul est-ce que bu boobaa euh, du indi coow. waa gis nga nag président Macky Sall de euh, lépp lu mu amati ci langue politique bi dafay neex opposition bi mais fi ma lay wax naan la dañuy ñaan opposition bi mu booloo parce que booloo mooy doole gis nga tey. fépp fu président Macky Sall bëggoon a def loo xamante ne daf ko bëgg a teg ci loxo ci kaw opposition ba opposition bi lànkee def benn bloc xeex reculer nañu parce que nag rapport de force donc moom la président Macky Sall xam bu fekkente ne nit ñi ne dañ ko bëgg jàpp ci mbiru légalité ah recours fii procédure fii jàppal bàyyil du mujj fenn. Macky gëmul loolu waaw ah, man gës gësuma lool ñu nag foog naa ni président Macky Sall lu mu tuuti tuuti pratiqué nañ ko depuis quelques années 2014 ba léegi ñu ngi milité ci réew mi 2012 2014 combat yi fi am yépp bokk nañ ci donc xam nañu lan mooy euh, euh, euh, mode de d'opération donc opposition bi moom mooy am fulla am fayda taxaw xam ne ay listam du nangu ku ko invalider. ñu avancer ci loolu mais bu ñu nangoo rek muy moom mooy choisir comme ni mu ko defee woon 2017 am na ñoo xam ne sa président Macky moo leen financé woon moo jël xaalis jox leen ko ñu ak ñoo ma nekk woon euh, manko mhm. ñu ak ñoo ma doon toog toog réunion manko mais dañu xëy xëy suba génneel la caution dem déposer xamoo fuñ ko fu nu ñu ko lijjantee am fukki nit amuñu ko bokk ci élection yi ñu ñëpp ils ont été parrainés parce que bi élection yi passé dañoo dem wuyu ji ko. waaw mm-hmm. ah, nag loolu itam bu ko accepté waatee tamit fii tamit kon tamit nit ki bu la yebee itam ci sa doxalin la. d' accord léegi euh, jërëjëf euh, Maimouna Bousso yow yaa jiite euh, force citoyenne xaj na dinañu dellu siwaat balay émission bi jeex tuuti moo si des ci li nga xam ne mooy. Euh, seen taxawaay ak yi ngeen di waaj mais dañu gis ne événement mars yi man na benn at. Euh, mu am benn jigéen bu tudd aji Sarr bu tuumaloon benn om politique bu tudd Ousmane Sonko jëm ci viol ba mu ko tuumalee euh, li xewoon ñëpp xam nañ ko am lu toll ci fukk ak ñeent si faatu. ba léegi gis nañ ne amul benn enquête bu leer boo xam ne am na ci ministre de la justice waxoon ne dinañu ubbi benn commission d' enquête loolu tamit amutoon mën na benn at lan moo ci sa jàngat. waa sama jàngat rek mooy euh, di wax ne li doon wax boobu léegi moom moo amaat fii rek mooy justice bi euh, moomul boppam justice bi euh, daf dañ koy xolloo fu mu war a xool ak gëmloo ko fu mu war a gëm parce que fukki sénégalais ak ñeent faatu ay xale yu ndaw ñu ngi leen di jaalewaat seen seen ay mbokk ba tey jii leeraluñu ci yan condition la ñu faatoo loo xam ni ba mu amee ministre de l'intérieur dafa génn ne dañoo euh, gis ay forces obscures ah ay forces occultes euh, wax fi waxu terrorisme ah ne loolu gis nañ ko voilà gis nañ ko loolu foog naa ni ku ko gis war ngaa mën a dëkk enquête teg sa loxo foofu ñàkk def nga jàppaleen parce que nag fukki sénégalais ak ñeent ce n'est pas rien mais c'est pas fois comme li ma la wax 2013 fukki sénégalais ak ñett ñoo faatu ba tey kenn leeralul même Ndiaga Diouf mi nga xam ne ñu ngi mu kii euh, pas Ndiaga Diouf ma Mamadou Diop. mi nga xam ni ma nga faatu ci ay tànku char de police ba tey ji ay mbokkam euh, amuñu amuñu gain de cause ñaata sénégalais ñoo fi faatu ci diggante bi ñoom fàllu seen ci ñu rey leen ci université yi ba tey ji leerul justice Sénégal moom ni mu doon doxee rek moom la doxee ci événement mars yi c'est malheureux muy benn sénégalais muy fukki sénégalais ak ñeent noon noonu la demee instrumentalisation justice bi tamit gis nañ ko ci dossier boobu ba tey jii tey gis nañu ni ce n'est pas normal ku toll nii ku am ambition politique ku mel ni sun ko nekk président de parti nekk député à l'Assemblée nationale tey nekk maire de la la grande ville de Ziguinchor ñu ngi koy féliciter au passage nga jël ko def ko sous contrôle judiciaire nangu passeport am te mënoo teg ci loxo sénégalais loo xamante ne dañu kañ ko mën a jàpp. te kenn du wax. léegi euh, Adji Sarr conseillé ak sorte bi mu def. Euh, suivre tuma trop Adji Sarr parce que man jigéen laa yaay laa comme li ma waxoon aji Sarr man jotewuma ci moom am na ñoo xamante ne ñoo ko làq am na ñoo xamante ne ci seen ci ginnaaw ñooñu ca la ca la ca la fatu fa la làqu euh, ñooñu ñoo xam ban stratégie la ñuy déroulé. pour conseil am damay wax rek nag mois de mars leen nekk du ñu nangu lu polluer suñu débat parce que nag mbiru Adji Sarr bi les gens en ont pour wax lu leen neex organisation féministe yi waaw da ngeen a tànn seen ay combat d'accorduma ci loolu parce que nag organisation féministe ça ne veut pas dire man bokkuma ci malgré que je suis militante mais ça ne veut pas dire que bu jigéen waxee rek dañu war a wax ne euh, nañu jóg dal ci kaw nit ñi parce aussi am na ñu éthique am nañ déontologie Adji Sarr am nay avocat am nañu ko am na ñu ko protéger am na ñu koy conseiller ñooñu ñoo am seen stratégie de défense ñu ko assumer mois de mars dañ nekk doléance su jigéen ñi dañu nekk di teg ci table bi attendre encore le mois de mars xëy na comme ni nga ko waxee yow nii dafa tombé un an ñu remettre encore ce sa sa ce sujet sur la table yàlla xam na ni suivre ma sax sorti boobu dama dégg rek nit ñi di ci wax nii mais liiru ko suivre ma ko parce que jàpp naa ni en tant que femme en tant que rakk en tant que jigéen su ma nekkoon ci wetam dinaa ko doon conseiller beneen doxalin bu dul bi d'accord léegi euh, une minute wala deux minutes ci njëg yi nga xam ne dafa yokk ba pare di persister état bi ne waa da koy wàññi commerçant yi ne loolu mënut a nekk. waa état bi bu amulee doole ba commerçant yi ñuy décider nu leen neexee njëg yooyu ñu wàññi. naxee mbaay la parce que tey euh, li am Russie ak Ukraine dina ñëw impacté ci sunu dund bientôt soreetul parce que euh, déjà commencé nañu di la wax mbiru farine euh, mbiru blé bi dinañ la ñëw wax léegi léegi mbiru gasoil dinañ la wax mbiru essence te loolu yëpp dafay am impact après ci transport yi am impact ci ci ci njënd meeg jaay bi donc su fekkente ne da ngaa jël loo xam ni da nga cee yokk 400 francs nga wàññi ci ñaar xëy na nag état bi dafa nekk di prévoir réaction askan wi parce que askan wi nag dañoo sonn li ñuy def nii sax ñu ngi taxalee leneen loo ci bëgg a yokk dafay metti moo tax xëy na comme supap ñu am lu ñu wàññi tuuti pour bu leneen ñëwee yokk ci kaw mu mën a tane loolu tamit stratégie la mais gëm naa ni daal régulation marché bi war na am gëm naa ni itam li war a njëkk a am mooy nga jël sa indépendance alimentaire Sénégal foo leen fekk dañuy wax indépendance politique di wax indépendance économique te duñ wax indépendance alimentaire munoo saay boo yeewoo bala ngaa dund da ngaa lekk mburu saay boo yeewoo lépp li ngay lekk danga koy jéggaane te nga am loo xam ne mu ngi jóge ci sa réew mii transport directement yow ak cultivateur bi yow ak agriculteur bi yow ak maraîcher bi doo ko dundee ngay dundee loo xam da nga koy jëngaane mais après loolu loolu benn askan mënu cee dem ba pare di nekk en sécurité alimentaire. léegi euh, Maimouna Bousso yow yaa jiite force citoyenne ngeen fas yéene dem ci élection législative yi da ngeen a commencé seen plan seen plan d'action comme ni ko jàngalekat yi waxee. wala commencé gu commencé nañu commencé nañu depuis déjà deux mois. suñu tànk yu njëkk mooy déjà dem nañu seeti suñu ay kilifa suñu ay suñu waajur tàggu leen ñaan te sàkku ci ñoom ñaan dem seeti itam kilifa diine yi kilifa aada yi ñu ngi ciy dox dese nañu peut-être ñett kër wala ñeent yoo xam ne matale guñ ko pour déjà wax leen sunu sunu sunu ay yéene ak tamit sàkku ci ñoom ñaan ak sàkku ci ñoom tamit ab euh, bàyyi ñu bàyyi ñu ñu yëpp ñu ah encouragé ñu itam jox ñu itam ay ay argument itam commencé nañ ko sur le terrain xëy na nag euh, munoo visite de proximité yëpp nga médiatiser ko mais Euh, prochain plan d'action bi dina nekk loo xam ne lépp lu ñu defoon ci suuf dinañ ko fësal ci kaw déedéet duñ ci dellu ginnaaw noo xam nga lu tax mënuñu ci dellu ginnaaw parce que nag euh, euh, élection législative bi foog mu nekk tournant pour suñu engagement citoyen politique parce que nag ñun ñoo autoproclamé suñu bopp kuy xeexal askan wi parce que danoo bokk ci ñoom léegi nag askan bi war a tànn ndax doy nañu ko pour ñu représenter ko ou pas donc loolu munuñu ci dellu ginnaaw te mënuñu ci tamit gañe ñu perte si. Hmm. Euh, njàngat dong lay nekk dinañ ci dem incha allah di ñaan sénégalais yëpp ñu ñaanal ñu jàppale ñu gunge ñu bu bu ñu doyee sénégalais yi ñu def ko ñu sante ko suñu borom santee leen ko taxaw taxaw bu mat bu ñu leen doyul tamit ñu xam ne tamit loolu mooy ñoom li ñu décidé. ñu accepté ko itam ça nous empêchera pas de continuer à être des sénégalais de continuer à être des continuer di liggéey mais dinañ am tamit peut-être beneen tournant ak beneen jàngat euh, politique bi ñu ci def. d'accord jërëjëf euh, Maimouna Bousso ñu lay sant di la gërëm. man maa lay sant di la gërëm di am toujours kontaan ñëw ci seen kër gi. Hmm. di leen ñaanal itam yokkute. Euh, jërëjëf euh, Maimouna Bousso mbokk yéen a ngi doon déglu euh, rajo réew mi FM seen émission pencum réew mi ngeen di si ànd ak Abdou Khadre bu jot bu 15h jotee jàpp 16h Mamadou Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu machine bi Maimouna Bousso moo jiite force citoyenne ñoom ñu fa yéene dem ci élection législative yi kon mbokk ñu leen di jox di daje samedi bii di ñëw incha allah ci beneen jataay